li ngeen gis mooy COUD mu ngi direction COUD ak sécurité bi jël nañu ay mesure xool visité ji commencé ne dañuy xeex problème boobu problème bi problème bu réel bu réel la bu am ci campus universitaire yi surtout ci période bii nag daf ci am dafa yàgg mais période bi nga xam ne étudiants yi dañuy dem di wut renouveler seen amical yi étudiants yu bëri dañuy wut arme denc ko ci seen néeg yi mbaa denc ko ci feneen et à chaque fois tamit direction wu COUD da doon jóg jëlee effort di xeex ak ñoom loolu lu ñuy regretter la parce que université bi quand war na nekk endroit bu nga xam ne même bu ñuy xëccoo mën nañu xëccoo neneen lu dul ay armes man joxe naa ay instruction bi jël na décision que maintenant directeur du COUD wax na ko étudiant bu ñu jàppati nga yore arme dugal ko ci université bi dinañ la dàq dinañ la conseil de discipline dinañ la dàq. dootoo jàngaleeti ci loolu décision la bu met ba pare bokkul ak poursuite judiciaire yi nga xam ne mun nañ ko ci mun na dinañ ko dina dal sa kaw da day dal sa kaw loolu man en tant que ministre joxe naa instruction yi te dinaa ci taxaw bu baax a baax